mbokki internet yu wasaare news ñu ngi leen di jaajëfal di lu seen ànd ak seen site internet préféré di di ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yu wér te ci suba ak léegi ci bëccëgu tey bi bile ñu koy door ak dogal bi gouverneur bu Ndakaaru daal di jël nag jëmale ko ci ñenn ci ñi nga xam ne nag dañuy yor seen moto di ko def loolu ñu duppee ab càq-càq maanaam ci yàpp nit bu yàkkamti rek ngir mën a doxi ay soxlaam moom gouverneur bu Dakar di Al Sall daal di nag wax ni jamono ji yooyee vélo taxi dañ koy tàkkante ci ndakaaru ndax gis na ni dafay xatal lekk lu jëm ci wàllu circulation bi te li ni mel daanaka rek ci altine bi yemook ñetti fan ci weeru janvier lañ koy rek daal di tàmbali moom gouverneur bu Dakar la mu ci yokk rek moo di ne càcc gi ak agression yi dafa gën di yokk bu ginnaaw si nag vélo taxi yi bu ñu tàmbalee ci ndakaaru ñu wax ci criminalisation mbirum góor jigéen muy mel ni nag Eh, ci àllarba ji yemoo ko ñeenti fan ci weeru janvier ci atum 2022 la rek njiital assemblée nationale di Mustapha dias dal di woote ñay toog ca pencum ndaw réew ma bu fukki waxtu ak benn tegalee fanweeri simili foofee nag ca bureau assemblée nationale daañ fa waxtaane ci proposition loi boobee nga xamante nekk dafay daal di criminaliser lépp lu jëm ci mbirum góor jigéen bu ñu sukkandikoo ci quotidien bi les échos xëy fësal li ni mel ci yëglekaayam boobee proposition de loi nag dañ ko jàngat ci a na mu waree ngir mën ko jébbal ñëpp ñooy toog ca pencum ndaw réew ma ngir nag ñu jàpp ne dañ ko wote waa wala déet ñu wax ci njiital Petrosen muy Mary Teuw Niane moomee jamono ji nga xamante ni sax bëgg naa toog ca mairie bu Saint-Louis la mu xëy fësal lekk moom PCA bu Petrosen boobee nekkoon fi ab ministre la République moo di ne képp koo xamante ne ab ministre nga ci Sénégal te ab sàcc nga waaw loolu la xëy fësal moom Mary Teuw Niane wax ni rek jamono ji loolee ab càcc la te bëri na ci ay ministre yu nekk ci Sénégal am ay këri kër luubal alal askan wi noonu nag la ko gisee moom Mary Teuw ñaan ñu jàpp ni rek wax ci li nag dina andi débat bu rëy ci Sénégal ak yenn ci ay ministre rawatina nag bu ñu toogee ci yenn plateau télévisé ci wàllu googee sax la ñuy desandi ak nguurub Sénégal bi jaay apartement yi nga xamee ni bi boo yi nekkaloon nag njiital Eden Park àndoon ak Karim Wade bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar wax ni nag groupe Sénégal daal dinay bi boo bourge yooyu ginnaaw bu yoon ak yoonal bu Sénégal daal di defee liggéeyam na ci fànn woowee wax ni nag jamono ji tribunal boobee ñu taxawaloon dubbeekoo cré yi nag moo daal di def dini mel bu ñu sukkandikoo ci RFM bi fësal xibaar bi ak domaine ya nga nag Mame Boye Diao moo ko daal di rek dëggal jamono ji nag ñuy wax yéen xibaar bi daanu nañu jàpp ni nag bi ba bourse yi appartement yooyu daal dinañ koy jaay kawteef libération xëy fësal ñoom nag di wax ni jamono ji foofee ci Yoff ku ñuy duppee Noreyni nag moo daal di faat ku ñuy wax Falilu moomee nag ca plage yu Yoff maanaam ca géeju Yoff tongoor la li ni mel amee ñoom ñooñee doon xëccoo lu toll ni nag ci vingt mille francs ndax kii di Noreyni dafa jàpp ni kookee di Falilu moo ko amee loonu toll ci ñeenti junni noonu nag mu daal di sàccab téléphone ci guddi googee lañ ngay nag lañ am xëccoo bu metti eh, ca géej bu yof tongo ba waral nag noorén yi daal di faat ki nga xamante ni moo doonoon eh, falilu eh, foofee ci yof jamono ji nag ci xibaar yu mujjee daanu nag wax nañ ni paaka la jëlee daal di nag faat ki nga xamante ni nag moom mooy falilu ñuy wax ni nag ci xibaar yi ba tey wax ni moom noorén yi ñu ngi fekk ci moom lu toll nag fukki laxasu yàmbaar ci wàllu sport ak wàccaay Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 foofee ca Cameroun nañu jàpp nag gaynde yu Sénégal ginnaaw si nag bi Sadio Mané ak Edouard Mendy ñëwee ci équipe nationale ni ki tey bu juróom waxtu jotee ci ngoon la ñuy dem ci palais la République jana ko njiitu réew mi Macky Sall daal di leen jébbal raay réew mi rawatina drapeau national ngir ñu nom teewal réewum Sénégal ñu wax ni nag ci gaynde yi ñi nga xamante ni nag des nañ ñu war a ñëw bokk na si ñoom ci Boulaye Dia ñu koy xaar Maradi fii ak ci ay waxtu yu néew moom Boulaye Dia ni ki démb sax mi ngi doon euh, janoog kii euh, bii di Levante ñoo ne nag lañ daal di dóor Levante juróomi ball ci dara moomee sax di Boulaye Dia daal di dugal benn but euh, daal di joxe à passe décisive ci jamono jooji ci wàcce Coupe d'Afrique des Nations gis di nag Guinée bi nga xamante ni war naa dajeek Sénégal ñoom dañ leen daal ñetti ball itamit ci dara ci kanamu Rwanda ci wàccaay Coupe d'Afrique des Nations 2021 foofee ci Cameroun